dalli nag jàmm ñu xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo wolof njaay na xal man nga koo bay bayal mu lakk sa dàgg yéenekaay gi di réew mi quotidien mu ñu xamal lan ñu jàngoro ji nga xam ne maanaam mooy coronavirus mbir mi nag mujjee naa sérieux ndax nag ma ngi lëmbaaje àdduna bi yéenekaay groupe promo consulting bi mu ñu xamal lan ñu lu toll si ñaari junni yu fekk juróom benn téeméer ci ay nit ñoo xam ne maanaam ñàkk nañ ci seen bakkan ca Chine lu toll ci fukk ak juróom ci ay nit yoo xam ne maanaam faatu nañ ca ca diwaanu Iran lu toll ci fukk ci ay nit ñàkk seen bakkan ca Corée du Sud si juróom-ñaar ci ay nit ñàkk seen bakkan ca Italie yéen a kaay gii di réew mi ko di jéem mu ñu xamal la ñu jàngoro jii di coronavirus jamono ji nag jot na sëkk ak barke bi yëpp maanaam jël ay motukaay ndax ni nga xam ne moom lay lëmbaajee adduna bi daal dinay doy war waaye nag ñi nga xamante ni ñoom la jàngoro ji dal te ñuy lapp-lapp yi maanaam ñooñee nag kenn mënu laa wax ñaata doomu aadama laña yéen a kaay gii di réew mi quotidien ci xalima ak Assane Samb la mu xamle nee na diiwaanu Italie jamono ji nag jàngoro ji ma nga fa te nag Italie nag bëri na ay doomu réewum Sénégal yo yoo xam ne maanaam ñoo ngi fay dund journal bi ne jamono ji jot na sëkk ak barke Afrique nag jël seeni matukaay maanaam xob ku bala ngay lakkale waaye nag Afrique ñëpp xam nañu amuñu ay jumtukaay yu doy bu fi jàngoro ji duggee nag boobee catastrophe lay doona jamono ji li nga xam ne moo am ba des maanaam mooy Europe ci boppam waa tugal ñëpp ñoo ngi organiser wu di daje si seen biir ngir nag di guerre ak jàngoro ji nga xam ne maanaam mooy coronavirus jamono ji nag loolu ci boppam moo war nag Afrique ñu daal di bàyyi mbir moomee nag wax ci mbiri Guy Marius collectif ñoo lànk ñoo bañ ñoom nag ni ki démb seeti woon nañ ki nga xam ne mooy Bougane Gueye Dany la mu leen xamal nag mooy Guy Marius Sagna daal benn pexe rek laa ci am su ngeen bëggee mu daal di génn ci kaso bi fexe leen ba jokko ak ki nga xam ne mooy Emmanuel Macron njiitu réewum France ndax Macron moom su ko neexee Guy Marius Sagna dina génn ci kaso bi ndax nag moom dafa njort ne moo ko fa daal di bàyyee yéen a kaay ki mu ñu xamal ñu docteur Babacar Diop moom nag dafa daal di interpellé ñi nga xam ne ñooy église bi wax nag église bi nee na église bi war nañu yëkkati seen kàddu ndax li nga xam ne moom lañ nemmeeku Sénégal Sénégal église bi saa su nekk ñi nga xamante ni seen loxo jotul seen ginnaaw ñoom la église bi di faral kon nag jamono ji jot na sëkk ñu daal di wax ci mbiri Guy Marius Sagna mi nga xam ne maanaam tëj gi ñu ko tëj awul yoon benn yoon libération yéen a kaay ñu fekkaat fa docteur Babacar Diop la mu xam le nee na bis bu ñu xëyee daal ñu teg naqara yéen a kaay gii di réew mi mu ñu xamal lan ñu Chine nag am nañu seen coronavirus waaye Sénégal nag am na corona poussière niki démb nag li nga xam ne moom lañ daal di nemmeeku ci Ndakaaru ak ci biir mi yëpp maanaam a poussière ngelaw loo xamante ni lu yéeme la jaaxal ñenn ci askan wi moo taxit ndakaaru ak yeneen i gox koo romb nag ma ngay takk ab masque yéen kaay gi di waa grand place mu ñu xamal ñu kàddu yi nga xam ne Mohamed Boun Abdallah Dionne yëkkati woon na ko wax ne askanu Sénégal ak Macky Sall seen diggante jeexagul fii ba 2035 Mansour Faye gorob Macky Sall bi yëkkati na ci ay kàddu mel ni nag lu koy weddi la mu xam ne nag nee na Macky Sall daal du fi toog ba 2035 waaye nag li am ba des mooy plan Sénégal émergent moom weesu na 2035 direct news ñu fekk fa Moustapha moom nag la mu xam ne nee na wax waxi ñetteelu mandat Macky Sall loolee sax xel wuru koo xalaata te nag dañoo nekkul ci réew mi di jéem a négocier di xool Macky Sall dafay jéem troisième mandat wala déet mbir mi lépp dafa leera moom Moustapha Diakhaté wax ne dialogue politique bi daal maanaam ay caaxaan rek la maanaam ay pexe la yu Macky Sall teg am loo xam ne daf koo daa di nar moom Moustapha daa di wax ne Macky Sall nag dafa bëgg a ronqi ay nit ñu nekk PDS ngir na gën a sonal Abdoulaye Wade yàggatul dara dina daa di nag fal ñoo xam ne ci parti Rewmi bi Idrissa la ñu bokk dàq ñoo xamante ni daal maanaam bokkul ak ñoom gis ci APR yamul foofu moom Moustapha Diakhaté la mu xamle nee na nag jamono ji li nga xam ne moo intéressé Sénégal yi mooy Macky Sall daal di wàccoo ak li nga xam ne ay digale woon a mandat bi jeex mu jël ay kaakeem ak ay dëbësam daal di ñuy abal yéen a kaay gii di réew mi quotidien xëy nag daal di ñuy dikkal ci Seynabou njaay mi nga xam ne moom nag dafa jëloon saabu dugal ko si ñaari doomi borom këram moom nag daat nañ koy atte ba tëj ko lu toll si ñaari ati kaso ndax xale yooyu nag dañoo mujjee gumba journal bi indi ay leeral ñaari xale yu jigéen yooye nag maanaam seen baay dafa tàggoo woon ak seen yaay takk beneen soxna bu tudd Seynabou Ndiaye Seynabou Ndiaye moomee nag moo def ñaaw téef gi daat nañ koy tëj ñaar fukki ati kaso waaye nag seen bàyyi ñoom xale yu jigéen yi di wuyoo si turu père Moudou Gueye moom tim daat nañ koy tëj juróomi ati kaso la ñu koy toppee mooy gis ay nit yu nekk ci ay jafe-jafe maanaam nga daat leen di seetaana yéen kaay gi di source a xëy yóbbu ñu diiwaanu Touba mu ñu xamal lan ñu mbir mu yéemee yéeme dafa am benn xale bu góor boo xam ne Assane Sène la tudd moom nag da doon bëggante ak benn xale bu jigéen bu tudd Awa ñoom ñaar ñuy bëggante lu ne Assane Sène defal na ko ko cinq cent mille jox ko téléphone cent mille francs daa di koy defaral nag seen i toilette lu toll ci cent mille francs daa di koy jëndal ay meuble lu toll ci trois yëkkati benn million daa di ko koy jox jàpp ne daal danañu ko ko daa may moom dafa jekk-jekk rek am mbetteel ñu jël xale bu jigéen boobu di Awa Ngom may ko keneen loole nag daa di koy naqari mu daat leen di porte plainte atte nañu leen yoon daat na leen tëj juróom benn weer yu ñu du tëdd yéen kaay gi dee sar xëy ci Ligue des champions bi ak nga xam ne war naa laale ak Real de Madrid sunu làmb ñu fekk fa Bécaye Mbaye la la xam le dañoo war a nag organiser ab tournoi boo xam ne kàngami làmb yëpp ñoo say bokk Balla Gaye 2 Bombardier Modou Lo Tapha Tine Ama Baldé Gris Bordeaux Reug Reug ba ci Lac de Guiers 2 ak Boy Niang Bécaye Mbaye na loolu rek mooy tax ñu mën a xam ana kan moo nekk roi des arènes te loole nag waa CNG ñoom ñoo ko war a organiser